di nuyu général bu Malika bu baax mook Sa Thiès ñoo jël sama jabar euh, kii ko euh, génn ko. ànd ak moom loolu loolu rëy la mbër la mënoon nëbb seen bopp. keroog mbër yëpp a nekk mais liñ def faaw ma gërëm leen. Mhm. parce que dañoo jël suma jabar nëbbatuwuñu na man vraiment kii suma mag la maay wàcc jabaram. général Malick ak Sa Thiès ñoo ni ki ni génnaw ak ñoom Ama ñëpp nekk ci ginnaaw sama soxna ndax sama soxna dama ko bëgg bébé ay love tout moom xam na loolu. da nga ko nopp carrément. non laa ko doxaan. 15 jours sama benn gaan mi wax Baye Zine si la. waaw ngental Mansour Ndiaye laa ñëw. waaw booy bi romb. waaw ma ne ko booy lijjanti ma numéro ma ne ko 75000. ko cent moom mi ngi fii sax mi ngi ñibbisi na ko jox. 75000 laa ko jox. boobu moom au passage du nuyu waa Turquie yëpp ñoom Mame Serigne Baye Serigne Tom Mame Serigne Baye Serigne moom ñoo ne Baye Serigne Niass. Eh, bi ñëw ma woo bàjjanam ñëw rek ne bàyyi mu ne ko ku la jox koo jox numéro ko bàyyi sëriñ mu ñëw bàyyi loo doyee numéro bi mu ne ko sa moom la yoon numéro yaayam ne ak kon kon kon loolu rek xel mu dal la un preuve daal demaat bu doon leneen day kaas bu teg feeñ léegi feeñ na feeñ na waaw léegi waaw xam nga ma woowaat ko téléphone mhm. ñuy jokkoo mais da nga xam ne xale la on est des jeunes bi ma koy takk yaa la l'âge de 14 ans xale la ah déggoo man ak gars yi ñu ne ma à l'âge de 14 ans ku ci takk jabar doon lay jàpp nee na man procureur dina ma yóbbu. maa ngi lay déglu man yow loo suba nga maa lay déglu moo tax ma moo tax ma la beneen kii bi nii. jaar jàppal ma ne 14 ans après léegi ñu ne ma yow pédophile nga xaw ma. waa baax na pédophile nga. ah pédophile. waaw pédophile nga ma ne waa kon baax na amul problème. <laughs> ma ñëw waxtaan ak bàjjen vraiment ñu bàyyil ma lépp yombalal ma lépp. sa bàjjen na. waaw bàjjen la ci man yaa sunu ndongo au passé di umu yaayam. Mm-hmm. di nuyu bu baax ma Mazé rek moom. nekkuñu fi sax di xam foo am baax rek am na fi ñu noonu. Mm-hmm. naan non moytu la borom Mercedes bu gis da yóbbu Thiès foo ak moom. kii di ko takk ma ñëw foo war a dugg ci kalaaf bi. ba maa naan maaxalaa dafa gaaf xale bi duggagoo ci ñu daan la affaire bi koo gaafal. dégg lu ma rek daf lu metti ko ñaan fi lay nekk ñu koy toggal da ci lay. mais boobu jox sama lekk mais dañuy njortu rek di wax man leen ah, ma dégg loolu moom it mu jooy ko. ma leen yow man ko yow yow neen damaa gaaf yàlla nay bëri ñu may daan chaque jour man dama lay takk. pare suis prêt. waaw man man sama sëriñ sëñ As. Euh, xoolal ma kii bi au passage di ko nuyu. sëñ As xoolal ma ko sax xoolal ma eh, boo kon d'accord nga li may wax ci ne jigéen bala nga cay dugg da nga koy seet. père loo dugg ci neen neen nga ciy génne mën ngaa dugg ci xam dafa amee rab bu la duggee da lay tëj da ngay faatu. jërëjëf yaa dégg ma ñëw ñu xoo ñu xool ko. sëñ As sama sama xel avant mooy toon wax naa ko sax bàjjal nettali ko ko sëñ As de bi mu duggee di xel yëpp bi ma xëy suba di ko woo sama xel maa ko naan même moom boobu bare na waaw waaw boobu dof nga. non dof mais dof nga rek baar dem mooy dof yow yéen a ko wax ci tubaab mais boobu ànd toog sa sago. après mu mu génn ma baax na ma ne ko maas mu ne wuu baax na ma xam sama sama sama sëriñ moom daa da lay mbalak yuu kii moom moom moom gaaw ci moom. Mm-hmm. nag amul problème teg loxo ci loxoom lépp nag tur nañu bàyyil ko ba pare muy loo xam ne lu sa sama ferte la. Mhm. ma dem ma takk ko. waaw non non waaw defe naa avant bëri Zos laa ko takk ah. ma takk ko dem bëri. avant ngay bëri ak Zos. laa waaw ma leen dama koy takk avant muy bëri Zos laa ko takk. ba ci revanche bi. ci revanche bi waaw dernier bi nga ko dóoree mu daan ma dem takk ko ndam loolu moo dàq sama combat ma dem daan ko. ñëw ñu commencé këram fees dell. moom. ma ne ko àdduna ngi nii ñu doon naan da gaaf ñoo la gën a jege ñu ngi nii ñoo la war a tey mais fii ngay jàngatee àdduna mais est-ce que ñi ko doon woon àdduna nang ko kii gaaf gi nangam ñooñu bis ba nekk nu fa ñoo ko jigee mais xanaa daf la koo nettali man ci la koo nettali ki ma takk sama mbokk la ah, moo tax lu mu yëg nettali la ko dëggul ma kooku ba nii nii nii ku bañ ma dégg ci dara bu ko wax mooy li ma la takk mbokk nag gis nga ni ku bañ ma dégg ci man dara wala ci nga wax dara bu mu ko yëg loo wax ci takk mbokk mais nice parce que gars yi ñi naan bu tasee mbokk gi tas non dañuy wax rek gis nga jabar dugal fi nga war a dugg moom mayee doom tuddoo doo yam doom boo ko tuddee dugaloo foo ko war a dugal bala ngaa dee di ko yëg maye nit nga maye ko nga ko maye. Mm. dugal ko fu war a dugal. Mm. total day feeñ. lu mu yàgg yàgg day feeñ. dugal ko fa nga ko war a dugal ko fa war a dugal. am na ñoo xam ne nii tey nitu intérêt lañu. Mm-hmm. dañuy jur doom. Mm-hmm. ñuy sa xarit. Mm-hmm. leer na war nañ ko tuddee mais am na benn deux cent mille trois cent mille bu ñu xool ci benn waaye boo xam ne war nañ ko jox ñu tuddee ko ko bu tudd mi jeexee un relation bi sax du neexati ah, mais xam nañ am na fi ñu ko war a dugal mais bari na am naa ci ay yu bëree bëri bëri bëri mhm. yu bëri bëri bëri nitu inter lañ léegi-léegi nit léegi-léegi nit ñëw léegi-léegi léegi-léegi nit ñëw sax naan la man su ma amee doom yi walaa ko tuddee mu am doom yeegi da ngeen gëj a déggante mhm. ay détails mais loolu taxul man may dund ak nit mhm. xam nga tudd bi gën a neex tudd bi ma dem fi war dem boo yëgul man ki ma tuddee dem mooy nas bokkuñu ndey ak baay ndakaar moo ñu boole mais mel na ne man dama koy wax lu ma dul waxul sama papa wax ko lu ma dul wax sama sama mag bu góor nas bi may tuddee doom États-Unis laa nekk di nelaw ñu woo ma téléphone ne ma tuddee na la Saer Yaari Faar ma ne ko luy loolu mënu ko nas tuddee na la doom sama tànki mel lu dammoo maag ñoom laay njaay yàmm ñu ngénte ko ngénte bu neex États-Unis ma ñëw gis sama turandoo kontaan sama benn doom Ibou Diagne bi mooy tuddee au passage di ko nuyu Ibou Diagne bi may tuddee doom damaa tëdd ba 11h. billahi sama téléphone du sonn ma gis ci lu toll ay 20 appels. man ko booy maa jaamoon waaye man de yow laa mujjee tuddee tout tànk bi. loolu mooy turandoo. fekk lépp pare na. mais tey dëkk bi moo toll foo xam ni comme li ma la wax rek. defal defal defal defal binaa ci mbër yi. waaw ñi xam ne ñëpp politiciens yi doon doon jàppale. Mm-hmm. kan moo ci ànd teg politicien bi ko doon jàppale avant te loolu lu jar a seetlu surtout mbëri ñun référence lañ exemple lañ royukaay lañ mm-hmm. nit ki bu ànd ak moom bu neexee nañ leen dégg bu naqaree nañ leen dégg mais chaque jour muy neex loolu baaxul